Tane Radim, Bismillahirrahmanirrahim. Euh, merci Madame la Présidente, euh, Messieurs les ministres, maa ngi leen di nuyu yéen ak seen collaborateurs yëpp euh, di ci beral nag yóbbante bu ñu honorable Bakary Diédhiou jox pour son son professeur le secrétaire général Paul Ndione mu ngi lay nuyu bu baax a baax monsieur le ministre dafa am benn chroniqueur français bu am solo boo xam ne ñëpp koy déglu dafa wax lu ma tiital cette semaine mu ne en Afrique et particulièrement au Sénégal on peut acquérir des infrastructures mais on ne les on les entretient pas mu joxe en exemple suñu bijou national bi muy le stade Abdoulaye Wade mu ne il a été inauguré le 22 décembre février 2022 et un an après on parle de dégradation profonde de la pelouse fi au niveau toolu tey defe naa dégradation de pelouse war a ko wax donc man may laaj quid de nos de l'entretien de nos infrastructures sportives monsieur le ministre savez-vous que l'athlétisme se meurt au Sénégal euh, Ken Ndoye paix à son âme jusqu'à présent elle détient son son titre kenn jëlagu ko et depuis Amadou Diaba depuis euh, euh, Amadou Diaba et j'en passe ñu bari ñu ngi am seen ay euh, euh, record te ba léegi kenn jëlu ko parce que dañu toppatoowul sport boobu donc athlétisme nous qui vivons à la Médina nga xam ne dañu daan vibrer par euh, l'athlétisme namm nañ ko parce que gis nañu ne yeneen discipline yi ñoom la ñu gën a favoriser monsieur le président savez-vous que monsieur Ndiogou Gueye président de la ligue Kung Fu Wushu a participé récemment au congrès des États-Unis par ses propres moyens et on nous dit que c'est un problème de budget est-ce que loolu mun naa nekk il l'a fait pour sauver une situation qui euh, à long terme peut être un frein pour nos nos compétitions donc kooku dama la ci interpeller et interpeller woon naa la ci commission yi di la wax ne sunu xale badminton yi bu ñu moytuwul bu ñu dem te loolu du sagu Sénégal ba nga rassuré ma ci loolu tam bëgg naa ci tontu parce qu'on nous dit que c'est un problème de budget aussi monsieur le ministre régler ñu problème yooyu yëpp on naa a besoin parce que dès le basage bu ñu commencé détecter pépinière yi nga xam ne dafay nekk ci école yi et la ay Aïda Sow Diawara wax ko ñu indi waat yi dina régler problème yu yu bari ci sport bi euh, monsieur le ministre faites cesser la violence dans la dans le dans le sport euh, euh, sportif parce que ñun ñi nga xam ne dañu dëkk ci wetu stade yi bu ñu nee dara xew na ci sport bi rek dootuñu nelaw dañuy tëj suñu doom ñun ci suñu bopp dootuñu am benn benn activité tant yooyu jeexul donc régler tous ces problèmes parce que nous vivons vraiment euh, le sport ñun dañuy dund sport dañu ko bëgg mu gën a am dem ci kanam te dañuy vibrer au au rythme du sport vraiment bëgg nañu yooyu yëpp nga régler ko euh, je vous remercie. merci L'honorable Fatou Gaye a la parole pour trois minutes. Honorable Mariétou Dieng, la suivante. asalaamaaleykum asalaamaaleykum ñoo ngi nuyu kenn ku ne ci turam santam ministre yi fi teew honorable député madame la présidente ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax monsieur le ministre dañ lay gërëm foofu bu baax tuuti parce que dégg nga bu yàggu rek département de Tivaouane jeunes yi doon def marche ndax seen stade bi comme yàlla dogal na benn site stade yi nga xamante ni départementaux yi boole ngeen si Tivaouane pour defar ko ndax yàlla xale yi am njàmm kooku dañ la siy gërëm sant la statu Mboro aussi la même chose parce que Mboro waxoon naa ko commission technique man la stade ba dafa nekk stade boo xamante ni Mboro dëkk bu mag la dañoo bokk ci championnat yi donc war nañu am stade boo xamante ni vraiment dina nekk stade bu baax ba nga xamante ni dinañ ci mën a recevoir ñi ci war a recevoir yëpp ci wàllu football kon ñu ngi la siy gërëm comme boole ngeen ñu si seen programme defaraatul ñu suñu stade bi stade li ma li may wax foofu aussi mooy euh, affaire si mbooro xale yi nga xam ne aussi jeunes yi nga xam dañuy def natation buñ demee ba nga xam ne mën na ne ngeen dimbali leen ci piscine piscine olympique parce que ñoom tamit dañuy def natation di dem di compétir sur le plan national même parfois sur le plan international loolu waxoon naa ko kon jeunesse su Sénégal en général dañoo bëgg football bëgg sport sax laay wax globalement léegi doo demee si biir département yi da ngay gis du ñu am ay stade mais ay terrain la ñu am terrain yi dañuy jël def fii camp def fee te loolu lépp peut à l'avenir mun ngeen fexe ba ñooñu nga xamante ne ñu ngi ci biir département ci biir commune yi nga xam ni sport bi intéressé leen ngeen jàppale leen seen terrain yooyu defaral leen ko ba nga xamante ni leen ci mën a compétir parce que benn Sadio maane doyul Sénégal mu ñu sañoon dañuy mel ni Brésil nekk dëkk football parce que sénégalais si boppam xale yi dañoo bugg football kon war nañ leen jàppale ci li ñu bëgg bu baax a baax. ñu interpellé ma aussi ci statut HLM moo waxoon la ko mais dégguma nga répondre ma ci parce que statut HLM bi fii si Dakar actuellement presque ñoo fi moo nekk stade boo xamante ni mën nañ si recevoir championnat bi mais HLM dañuy demander ñu jàppale leen defaratal leen stade bi defal leen ci tribune bu baax boo xamante ni dinañ ci mën di recevoir bu ñu amee championnat national bi wala yeneen jeux yu am ci Sénégal bi parce que stade bu mag la bu baax la te waa HLM bëgg nañ ko fonk nañ ko ngeen jàppale leen si maa ngi leen di gërëm di leen sant wasalaam. merci beaucoup honorable l'honorable Mariétou Dieng a la parole pour quatre minutes l'honorable Ousmane Gueye se prépare. asalaamaaleykum Lay Maktar. madame la présidente ñu ngi lay ziar di la jox sa yéeguwaay di la féliciter di la encourager itam euh, monsieur le ministre des sports ñu ngi lay nuyu di la ziar di nuyu aussi monsieur le ministre des finances et du budget di nuyu aussi monsieur Samba si di leen jox aussi cër bi leen yàlla jox ñu ngi nuyu ñi nga àndal ñëpp di nuyu aussi député ñi jàkkaarlool monsieur le ministre le département de Keur Massar remercie le gouvernement on lit à la page 513 que li ñu fi waxoon ñun ci ay doléances depuis daaw a été pris en compte et pour cela vous nous dites qu'en plus de ces projets un financement de 1,5 milliard sur ressources internes est